participation bu am solo di ko barkeeloo ci juddu yonante bi saabu bu teroo xel yépp dem ci ci mbaaxu suñu mag ñi ak seen ñàkk kiñaan moo tax rek ñu jël ko jagleel ñu ko waaye ñoom bind nañ comme ni Buseyri bindee waaye ñoom foo leen fekk dañuy yaatal wax dañuy wax ne ko amul cër bu joxe cër di gërëm bu baax nag sunu sangu bopp Cheikh Alassane seen yal na yàlla guddal fanam te may ko wér sumb bi mu sumb ci lislaam pour jàppalee ko yonent bi ci woote bi yal na yàlla ko yàlla may ko kattan bu mu ko mën a mottalee yàlla may ko wér ga te defal ñu ko te defal ko képp ku ko sopp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit la koo xam ne yonent bi rekk lay noyee ñu wax ne nag nit koo gis dafa am profil bu mu lay fàttali am na koo xam ne ku ko gis sa xel ci fo lay dem am na koo xam ne ku ko gis sa xel ci jaamu yàlla rek lay dem am na koo xam ne ku ko gis it sa xel ci yonent bi rekk lay dem te moom ci ñooñu la bokk yal na yàlla guddal fanam ñu juróom-ñeenteelu bunt ñu ñëw ci Bushayri mu ne qaddamtuhu bi madihin astaqilu bihi zunuba umrin mada fi shi'ri wal qidami mu ne liggéeyal naa yonent bi sallallahu alayhi wa ay am daax yoo xam ne maa ngi cay xàccee xàccee ca watte dund goo xam ne dafa passé ci wayal ay buur ak di leen liggéeyal sama dund yëpp dama ko jagleel woyal ay buur ak di leen liggéeyal ma dem ba yëg ne wayal buur yi ak di leen liggéeyal duma ci am li ma bëgg mu ne ma xàcc way ak liggéey booba jëndee ko defal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ko defal rekk ko ko jar mu ne isxal la daa nii maa tuxsha awaaqibuhu ka anni bihima hadyun min annaimi mu ne demoon naa ba wayal buur yi ak di leen liggéeyal dama demoon ba jàppe sama bopp gàtt boo xam ne dañ ma udd di ma xont ngir bu gan bu am maanaa amee ñu rendi ma bégalee ko kon li mu nekkoon metti na mu ne ataxatu xayya siba fi xaalatayni wa ma xasaltu illa ala al asaami wa nadami mu ne topp naa mbew teg ndaw waaw ndaw loo xam ne yaa ngi wér am wërsëg dara teewulaa def li nga bëgg ndaw lu mel noonu day naqaree contrôler mu ne topp naa mbew teg ndaw ci ñaari nekkin yii mu ne waaye jëleewuma ca dara lu dul ay bàkkaar ak rëccu gu mag boo xam ne rëccu naa ko parce que li may rattrapé li may dàqi mënatuma ko jot mu ne fa yaa xasaarata nafsi fi tijaaratiha lam tastari diina bi mu tasu tasumi mu ne woonaa pertu sama bakkan bi nga xam ne li mu jënd waxaale wu ko lam tastari diina jëndewul diine bi duniyaa lu dul ci àddina walam tasumi te waxaale ko moom lim jënd ci kumpa la ko jënd moo tax sunu maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu wax ni laa tas tastari duniyaa bi uxraa yaa fataa man baa nuuran bi dujaa fa sa yem damm mu ne yow ndaw maa lay dénk sa àdduna bul ko jënde mukk sa alaaxira ndax ko jaay leer jëndee ko lëndëm bu tàkkusaan jotee nga mere la deful dara te mbokk yi àdduna amul solo luy jeex la te mi ngi taxaw ci jeex mu ne wa man yabi ajilan minhu bi ajili bi ajilihi yabin lahul xabnu fi bayin wa fi salami mu ne ko jaay ëllëgëm ngir yàkkamti jëndee ko tey mu ne lim jënd na ko wóor ni jënd na ay nax yoo xam ne du ci jële dara waaw du ci jële dara perte rek la ciy jële bu ko rek lay day perte waaw adduna moom ku ko jaay jëndee ko alaxira bu alaxira jotee boo rek rek da pert mu ne in ban zanban fama ahdi bi muntaqidin min nabiyin wala xabli bi mun munsarimi mu ne su fekkee dikke naa ay bàkkaar te aw ma benn pacte bu ma signé bu dul maag yonent bi mu ne pacte boobu yëg naa ne du fireeku mukk ci yonent boo xam ne buum gi ma yeew ci moom du reweñ ci ko waaw sama dund yëpp dem naa ba yëg ne maa ngi koy bëgg a perte ma jël li ma dese woon yeew ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yëg naa ne fi ma ko yeew buum ba jàpp na mu ne fa inna li zimmatan minhu bi tas tasmiyati mu ne am naa ci yonant bi kóllëre goo xam ne muy tudd giñ ma ko tuddee muhammad waxee moom yonent boobu aw fal xalqi bi zimam bi moo gën a matal mbindeef yépp ci mottali kóllëre kóllëre gi yonent bi am ci matal ko ku séq moom kóllëre da nga daw ba ko fa waaye yonent bi moom kóllëre bu firin ci ku mu ne in lam yakun fi maadi aqidan bi yadi fadlan wa illaa fa xultu yaa dallatal xadami Mouhamadul Bouchayri nee na in lam yakun bu nekkul moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii maadi ca àllaaxira muy delluwaay ba aqidan bi yad di téye ci sama loxo bi fadlan ngir mbaaxam nee na wa illaa fa qultu li yaa dallatal xadami lu tu li wax ma rek ne ma yow aji perte ab aji perte say jéego ji maanaam si jéego yi nga def yëpp perte ma ko bu ma yonent bi tàllalul loxo gëneelam boobu tàllalu ko kenn kooku moom perte na ay jéegoom. mu ne xaasaahu an yuxrima raaji makaarimahu aw yurji al jaaru minhu gayru muxtarami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sellal na yéene képp ku ko yaakaar te boo agsee mu teral la teraanga ju ëpp ji nga jortu ci moom yonent bi ëppale na bopp nit di ko yaakaar di delloo loxoy neen du ko def mukk ku ko mos tàllal loxo rek dina la njëkk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa munzu wa munzu alzamtu afkaari madaihahu wajadtuhu li xalaasi xayra multasimi mu ne wa mulsu alzamtu afkaar yi ma daa eexu mu ne saa yu ma taq ko xalaat sama xalaat yi ma taqale ko ci way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama xalaat yépp dama ko jël taqale ko ci way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wajadtuhu li xalaasi danaa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ak xettali ci man boo xam ne duma duma duma duma duma duma doyadal mukk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma doyadal mukk walan yafuuta xina xina minhu yadan taribat inna alxayaa yunbitu l adhaara fi akami mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fàddu mukk ci koo xam ne tàllal na ko loxo yonent bi du mooyu la nee na moom du ko def mukk ak noo mën a mel boo ko tàllalee loxo mu wuyu la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xanaa yëguloo ne gàncax daal taw dana ko dundal ci dett boo xam ne dafa deewoon ba ñëpp jàpp ne fii du sax ñax waaye da ngay yëg ne nawet tabe na tabe koo xam ne su tawee fu mu fekk fu lu wow dana ko tooyal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a tabe nawet fuuf waaw mu ne walam urib zahrata dunya illa allati aqtafat yadda zuhayrin bi ma asna alal xar alal xir alal mu ne wattuma ci àddina watt wattuma ci àddina lu dul meññitum àddina moo xam ne mi ngi mel ni toolu toolu Hiram ibnu Sinan benn buur la woon boo xam ne Zuhayru jaamam daan na fa dugg di fa watt ay fleur nee na wattuma ci àddina lu dul lu mel ni la Zuhay la Zuhayru daan watt ca toolu Hiram nee na noonu laa meloon moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa képp ku ko yaakaar rek jàppal na yow texe dugg na ci yow parce que yonent bi du tas yaakaar yi ku ko yaakaar moo tax borom téere ba di ko way ne fal izzu lana li ijaabatihi texe ñeel nañu ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wuyu gi ñu wuyu woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi ah suñu jàmbaar ji nga xam ne moom yonent bi rek lay dund ah, dafa munta wax rek li fi mag ñi fi jaaroon wax waaye yëg-yëg ba moom am na te dañuy wax ni yëg-yëg moo gën a for wax parce am na yëg-yëg bopp bu ko boroom waxoon ñu weddi ko mbaa ñu dugal ko ci gaalu kéeféer waaye moom day yëg yonent bi sallallahu alayhi wa muy Cheikh Alassane Sène sallallahu alayhi wa sallam rekk lay dunde moom lay noyee bëtam moom lay gis ay jéegoom yonent bi la ku ko gën a sopp yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam dama ñemewut a fen ma nekkoon man ñu mekkoon ma ne amul ndax foo dégg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña ko fay defal nangam da nga fa teewal sa jëmm mbaa nga teewal fa sa loxo kon kooku ku sopp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te maam Cheikh Al Hadj Malick dafa sa ni wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnat al muxtaari taxtanami ku sopp dara te dara ja jaralu la dara da ngay wax rek waaye dara jooja soppoo ca dara te moom dafay dund yonent bi ci biir dund ko ci biti kon yal na yàlla gën a dëgëral coofeel googu yàlla nañu yàlla def ay soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu